Akhlou Brick ni ki tey tamit daal di nañuy fësalaat beneen son daal di koy duppee rek effet de leer ci seen son boobu sax wuñ ci benn yoon woykat bi wala sax rappeur bi di Ngaaka Blindé loolu nag daal di nekk ay clash yu tàng jër yoo xamante ni jamono ji daal di nañ koy nemmeeku bu baax a baax ci diggante Akhlou Brick ak ki nga xamante ne moom moo di Ngaaka Blindé waaye nag ki di Ngaaka Blindé mu mel ni mu nga ca beneenub tournage di waajal beneenub tontu loolu nag clash bi nga xamante ni sax jamono ji yëpp moom moo daal di lëmbee réseaux sociaux yi mu ngay gën rek di wéy mbaa jur jàmm en tout cas ñoom nag artistes yi tàng nañu jër jamono ji en moins de vingt ku ci nekk rek di nga daal di bind rek yàq sa morom lu mel ni xeme waaye nag des ci clash boobu ba tey rek mu mel ni sax ki nga xamante ne moom moo daal di def bit bu njëkk bu Akhlou Brick di nga xamante ni sax moom mo di son bi daal di waral bile clash di Bril Fight Fo ci clash Bril rek moom mooy tub bi loolu nag di tax ba ah, Bril daal di moom tamit génn rek ne moom moo di waa Akhlou Brick daal di andi ah, FRL gan loolu daal di nekk ab son boo xamante ni sax mu jàpp ah, moom mooy faj rek groupe bi di Akhlou Brick Paradise waaye nag mu mel ni kii di Dip Doundou Guiss gannaaw si tey nag moom moo nekkoon invité bu Pape Cheikh Diallo foofa ci Midi Plus moom Dip nag mu mel ni clash bi nga xamante ni daal di nay yëngu lool ci diggante Ngaaka Blindé ak Akhlou Brick moom Dip nag daf cee daal di neutre ndax kat euh, waxloo nañ ko ba sonn euh, ci rek euh, Ngaaka Blindé ak parole ya nga xamante ni daal na koy utiliser rek wax rek ci li nga xamante ni sax moom moo di turam waaye nag mu mel ni moom dip garaawal li ni mel ndax kat a bokk ci yi nga xamante ne dox na ci digganteem ak Pape Cheikh Diallo ak ki nga xamante ne moom moo di Kalz ci sax bile clash a dip du ñu gis sax muy wax sax naan daal dinay dépassé li ni mel naam sax doon clash waaye nag jamono ji nekk na ci beneen level waaye du nekk fi fii di attardé wu ci ay clash moom dib nag loolu la di tontu waaye nag keneen koo xamante ni ci bile clash muy artiste di El Menemo gannaaw nag featuring bu njëkk ba moom sax bokkoon na ci li waral bile clash mu mel ni Ngaaka Blindé bàyyiwu ko benn yoon daal di koy taxé rek de puune El Menemo nag pare rek pour répliquer daal di andi rek effet de de terre El Menemo ci loolu nag ki nga xamante ne moom moo di Fata El Présidente daal dinay rek wax sax ci clash ñaari group bi di Akhlou Brick ak ki nga xamante ne moom moo di Ngaaka Blindé moom Fata nak muy wax nag naan texte yi c'est beau waaye nag mën na ñàkk saaga ndax loolu dafay daal di yàq rek image rab gal seen wax ci leneen Pape Sidi Fall daal dinay offrir rek une voiture à sa femme Khadija loolu nag daal di nekk euh, ab cadeau boo xamante ni sax ab oto la à l'occasion de son anniversaire moom Pape Sidi Fall nag euh, pour faire plaisir à sa femme daal dinay rek yëkkati woto bu bees tàq jox ko rek kii di Kaja nekk euh, soxnaam euh, nekk journaliste foofa ca 2STV ñoom naar nag ñu bokk ca benn boîte ba ñuy liggéey waaye nag Pape Sidi Fall daal di xëyitéere rek amuram ci kii di soxnaam euh, ñi nga xamante ni sax moo di anniversaire mu daal di koy jox ab woto rek waaye nag gannaaw si loolu interview bi nga xamante ni moom Pape Sidi Fall sax daal dina koy def rek di wax sax rek ci complicité bi nga xamante ni am na ci digganteem ak kii di Kaja loolu nag daal di nekk loo xamante ni moom Pape Sidi du jóg rek ci di ko bégal bokk na sax sax di wax naan dafay daal di rek cuisiner pour sa femme loolu nag nekk ab xeetu galanterie boo xamante ni mu ngi ci animateur bu 2STV bi di Pape Sidi Fall gannaaw muy confié wu rek ci soxnaam à l'occasion de son anniversaire. kawteef li tali bi di rey jamono ji daal dinay bëri lool ci lool nag ay accident yu bëri rek lañu ñu daal di nemmeeku gannaaw si Sindia nag ab accident bu metti boo xamante ni nemmeeku nañ ko foofa ca diwaanu Mbour ba juróom-benn nit daal di ci ñàkk seen bakkan beneen accident foofa ca diwaanu Tamba loolu nag daal di nekk ab collision bus ak taxi ci loolu nag ñu mën cee wàññi juróom nit yu daal di ñàkk seen bakkan koy amaat rek mu nga nekk sax foofa en face mairie bu Grand Mbao ab camion citerne nag moom moo daal di daanu rek ci ab taxi ba daal di jur sax ñetti nit daal di ci ñàkk seen bakkan loolu nag daal di doon lu métti loolu à l'espace de soixante douze heures ñooñ ñëpp daal di ñàkk seen bakkan mu daal di nekk lim bu takku ci tali bi rek ci loolu nag accident yi daal di dellusiwaat rek gannaaw ba nga xamante ni sax sensibilisation ak yeneen xeetu waxtaan daal ci tali bi waaye nag mu mel ni ah, jamono ji tali bi daal dinay tàng jër ndax kat li muy yóbbu ci doomu aadama ah, daal yi bëri lool xanaa di ñaaxaar rek dawalkat yi ñu daal di gën a vigilant ci kaw tali bi kawteef ca diwaanu Grand Yoff kii nag Ousmane lay wuyoo moom moo daal di xoj jabaram rek ba mu daal di génn àdduna ñoom nag ñu daal di nekkoon sax ab couple am lu toll ci ñeenti at mariage muy quatre ans de mariage am sax benn doom bu jigéen waaye nag Ousmane dafa daal di étrangler rek ki nga xamante ne moom moo di jabaram ba mu daal di ñàkk bakkanam jamono ji nag ñii di takk der yi daal di nañuy wubbi ab l'enquête ca diwaanu Touba ca cimetière Baqiya mu mel ni sax ab góor jigéen rek lañ fa bëggoon euh, suul waaye nag ñii di daayira mu xaddimatul xaddima daal dina ñuy lànk rek ne du ci dal gàntal li ni mel di wax sax naan ab góor jigéen kenn du ko suul ci cimetière Baqiya moom nag gannaaw ba nga xamante ni andi woon nañ ko sax foofa ca diwaanu Touba bëggoon ko faa denc rek mu mel ni ñii di daayira mu xaddimatul xaddima lànk rek ne du ci dal wàññiwaat leen ñu daal di dellu fa ñu jóge woon wax ci coowal viol Kaliphone ak Adja Thiaré jaw mu mel ni nag coola la mu ngay jib ba léegi gannaaw ba nga xamante ni sax décision ba nga xamante ni daal nañ koy jël neexul la dara kii di Adja Thiaré Diaw waaye nag mu mel ni rapport ba nga xamante ni sax daal dinañ koy rek xaatim daal di exclure rek thèse de viol ci lool nag daal dinañuy fësal sax ne viol amu ca ndax kat la fille Adja Thiaré Diaw elle est toujours vierge lool nag daal di nekk rapport bi nga xamante ne moom moo daal di tukki rek ci li ni mel lool waaye nag mu mel ni Californie daal dinay addu rek ci mbir mi muy fësal sax naan kii di Adja moom moo ko daal di contacté woon rek ngir bëgg xaalis war a def sax shooting ci loolu nag gannaaw ba ñu nekkee ci wotoom mu daal di jël loxoom rek dugal ko ci poosam moom nag ba muy daal di xëccoo ak moom rek ci la daal di sax nangu téléphone Adja waaye nag moom Californie yamul foofu rek gannaaw muy sax di fësal naan kii di Adja Thiaré Diaw la kon nag moom naka la mën a violé euh, ab lesbienne nga xamante ni jigéen rek moo ko ñor bëggul góor loolu nag nekk ay révélation yoo xamante ni kii di Californie daal dina koy def euh, ci rek coowal viol bi nga xamante ni sax dafa jàpp a kii di Adja Thiaré Diaw daf ko ko daal di takal wax ci leneen yaa Awa Rassoul nag dal di génn rek ak sax yen ci ay kaddu yoo xamante ni daal dina koy dénk rek ci couple yi euh, loolu nag notamment sax a ñuy wax ñi nga xamante ne ñoom ñooy couple artistes yi mu a ne sax ne couple artiste métti lool kon nag war nañu gën a muñalante bu baax a baax te xam ne c'est pas facile ngay nekk ak ki nga xamante ni ab artiste la sax ndax rek yenn ci ay tentatives yoo xamante ni mën na tukkee fu nekk kon nag couple yi nga xamante ni sax ay artiste ñoom ñoo ko daal di séq war nañu gën a am plus de prudence di jéggale tey jëlale loolu nag nekk ay kàddu yoo xamante ni moom influenceuse bi di a wara Rassoul mu ngi ko daal di dénk rek couple yi rawatina sax ñi nga xamante ne moom moo di artiste ji ca duwaanu États-Unis eh, di rek amal ay vacances am en compagnie de sa femme moom nag Aba Nostress gannaaw ba nga xamante ni sax eh, nekk na ab animateur boo xamante ni ràññee nañ ko bu baax a baax ci Sénégal à travers style d'animation bi nga xamante ni eh, mu ngi koy def di ci boolewaare rek lii di humour ñii di sax ay flowsam daal di koy sopp lool ci loolu muy def gannaaw nag mu daal di teew ca diwaanu États-Unis ak sax ab marche boo xamante ni jot na daje ak ñoom moom Aba nag yoonam mbir mi waaye nag daal dinay fexe rek ba di wax sax naan marche bi nga xamante ni ñii di euh, nekk foofu ca diwaanu États-Unis ñu ngi koy def euh, du dara rek lu dul dund gu cher ak sax cher te loyer yi loo nag nekk ay doléance loo xamante ni sax mën nañ jàpp ne def ko daal di inspiré wu rek ci fii ci Sénégal euh, waral sax foofa ca États-Unis ak marche ba nga xamante ni moom Aba daal dina koy tombé rek muy wax sax naan dara waralul bile marche lu dul cher te dund gi ak location. tàggat yaram la ñuy jeexalee MMA gannaaw ba daane rek brésilien ba mu mel ni nag beneen doomu Sénégal daal dinay amal rek signature contrat face to face ni ki tey fas yéene amal sax combat MMA am suba muy rek rek moom rek rëg nag fas yéene naa dajek kii di Gad Zayev moom nag ki tey sax la amaloon bile face à face fas yéene sëgg bëri rek ni ki suba loolu nag nekk MMA bi nga xamante ni sax magam di Bombardier amoon na ci fan yi ñu génn mbokk yi ñu teewlu li leen leen an di leen ñaanal jàmm di leen wax ngeen abonné suñu laal cloche notification bañ a raté dara suñu information jërë ngeen jëf